bi. ah perte nga gauche perte droite perte ci diggante bi. ay joŋante la. ok ay joŋante. dañuy joŋante kon daan joŋante bi saf saf. waaw man ak yow yomb. mais dama bëgg bàyyi mii bàyyi gaajo mii nga daal di koy jël sànnil ma ko ca xaj. dama bëgg nga wax ma ñaata ngay laaj lum ci doon ma def ko am naa ko mën naa ko te dama koy def. wala léegi da nga bàyyi ñaata nga jëli njaago bi. jëla góoru njaago ñu ne lakkat xamul caaxaan bàyyi ma doon wax waxu jabar jabar waaw c'est bien yow la may premier njëkkee bi xanaa non non pour man bu déggee tëggkat ba naan pataas kenn du kin rumbax rumbax ah, c'est pour les c'est capara càkkin capara càkkin capara pindalo capara càkkin gaay tii càkkin càkkin man càkkin càkkin <laughs> dégg nga pindam pindam ram càkkin càkkin patas qui débarque qui débarque ça c'était son grand-père son grand-père refusait de dire la ilaha illallah alors le petit-fils a dit tas na tas ramber ki ndax et le grand-père a dit la ilaha illallah et il est mort d'accord wax ji dootul man ak yow mais man ak bàyyi la dama ne woon damay xeex ak moom jàpp ko tuuti bés addi ko bés dindi taxaw benn par benn il fera avec man lay jëm a suuf moom daa am sax saman amee cu amee cu non lii moom faaw ñu defaat ko jongante bi dama kontaan lool kontaan naa trop bu ko defee ngeen mën a xamaale samay mbokk ñu defaat beneen jongante